مبكي جلدي مبكي جروب وأعد لهم ما استطعت من قوة ما عندي جملتي سنو بفن ينب ينتي كاد يبايكو تي سنغ بتد بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جمسي تنون كاد يجمسي وارغ جلد ورا دفاندر برو مرو من جلدتم saa yu su ko bëggee tilimal ci lu dul dëgg bis buñ bëggee tilimal deru sa mbokkum jullit te tilimal ga du dëgg war goo ko war a défendre lu lu la sariya gàll la boo ko mënee waroo ko teggi sa kaw da ko war a taxaw défendre ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa daf ñoo nettali benn xadis boo xam ni mi ngi ci shaabul iman bu al imam al bayhaqi sayidna abdullah ibn abbas moo ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam dafa wax ak ab jaamam bu ñuy wax daawuda dib yonentam daawuda alayhi salaam daawuda da doon wax ak boroomam boroomam di ko tontu داود عليه السلام خاطب ربه عز وجل دا فواخ بروم نيكو يا ربي يا سما بروم اي عبادك احب اليك سجامي كان مولتي جنل گنال كان مو لتي گنال كان مو تي گنا سوب في يو دما بڭا خامل مكو سو مكو احبه بحبك سو مكو خامل دما ngir sopp gim la sopp wala sopp gim ko sopp suñ boroom ni ko subhanahu wa taala yaa daa yaa daawuudu yow daawuud ahabu ibaadi ilayya gënal sama jaam yi mooy naqiyal qalbi ku set ab xol bi maana jaamuwul kenn ku dut man man rekk lay jaamu du ngistal du bokkaale du du rambaaj du jëw du jaxase naqiyul kaffayni ku set ab loxo bi maana musta jël lu moomut mbaa mu joxe ko loxo bu set la yati ila ahadin suan musta indi lu ñaaw di ko yóbbu ci kenn musta diree aw ñaaw téef ci àll ba bëgg cee tilimal wala mu bëgg cee yàqal kenn wala yamsi bin namimati musta dox tànki Rambat, dox diggante nit ñi naan diw neena na nangam wala dengel li di wax pour rambaaje ko nit ñi yazulul jibalu problème man na reuy ba mëna dindi montagne yi wala yazulu way mom fam taxaw du fa lu ciow bari bari lu lëndëm tar-tar ma nga ci lam wara nek ba wa ahabbani mu bëgg ma man yalla wa ahabba man yuhibbuni ba noppeet képp koo bëgg nga ma مبجل bëgg la wa xababani ila ibaadi mu fexe fexe fexe ba sama jaam yi bëgg ma lii kon mu ñëw def loolu waaye ni leen seen borom dafa bëgg ngeen wéetal ko dafa bëgg ngeen jaamu ko te teral leen moo tax mu sàkk leen ku mel nii de yàlla bëgg yal nañu ko yàlla melloo yal nañu yàlla xamloo melokaan yi te melloo ñu ko daawuda ni ko waaw yow sama borom innaka la taalamu anni uhibbuka wa uhibbu man yuhibbuka fa kayfa uhabbibuka ila ibadika daawuda ni waaw yow suñ borom yow day xam nga bu baax ci ni man di bëgg naa la kon daawuda bëgg naa la yow sama borom tey képp ku ma xam ni bëgg na la bëgg naa kooku te loolu xam nga ko ma lay laaj nag yow yàlla man daawuda nan laay def ba fexe ba sa jaam yi bëgg la nan lay def ba sa jami yi bëgg la dal bëggoon na nga xamal mako ko ba ma mën koo def suñ borom subhanahu wa taala niko ko zakkirhum bi ayati fàttali len sama alquran ji fàttali len sama firnde yi wonani man ko am la fàttali len luy tax seen pas-pas ci man gëna deugër dëgër seen jokku ci man seen aju ci man seen delu ci man sax wa bi ala'i wa na'ma'i xewal xéewal yi ma leen def li mu leen di defal may leen ko rek sotti leen ko buñ bëggee buñ bëggul buñ yëgee buñ yëgul waxtaanal maa ngi ñoom ci anam googu wan leen samay aaya wan leen samay xéewal nga gis buntub fan lañ mën a jaare jaam bi ba taqale koog boroomam muy bunt boo xam ne suñu sëriñ si moom wax dëgg yàlla najaax nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax sëriñ si rek ngay dem ci ñoom ñu bëgguloo la yàlla wan la ci ci yàlla ay ay xéewal ba da ngay boo xalaatee li yàlla defal danga naan yàgg ak gàcc suñ sëriñ si képp ñoo lay yara yara yara yar di la wan ni la seen borom bi defal ba nga nangoo toog di wax ak yàlla naan ko sa may yu rëy yi nga may ak sama moy yu rëy yi ma mooy nga te nga di ko wax te nangu ko يالا نك لي واحد داوود سبحانه وتعالى نقول انه ليس من عبد يعين مظلوما او يمشي معه في مظلمته الا اثبت قدميه يوم تزل الاقدام داوود يالا واخا نيكو انه لي دغ تيدق laysa min abdin amul benn benn benn jaam ak lu mu xeebu xeebu ci seen biir lu mu tuuti tuuti yuiinu mazluman muy fekk ku ñu tooñ mu di ko jàppale di ko dimbali aw yamshi maahu wala muy dox ànd ak moom pour lijjanti fii mazlamatihi ci tooñ googu ñu ko bëgg a tooñ nga fekk sa mbokk ñu tooñ ko nga ko ciy dimbali ba tooñ nga tegg ko ci kawam lii du am mukk ludul illa illaa asbattu lu man yalla dana dëgëral xadamay yi tànki kooku demoon di dimbali mbokam ci togn guñ ko tojon yawma ma te zillul bis nga xamni tank yu bari danañ tarxiis tarxis ci kaw daanu ci biir naari jahannam kep ko xamanteni bi yek nga ni diw ñang koy togn nga taxaw ci sa kam lay man man ak sa kam lay kaptan te def ko ngir yalla lebal ko yalla yalla neena bis bu ñu bari de tarxiis ci kaw siraat di daanu ci muy laal jahannama man sa boroom maa lay téyel sa tànk yow nu ma defal lool yi ba doo tarxiis doo daan mbokk yi bàyyi bañ a tooñ képp sax ndekete doyul te nag mënut a ñàkk waaye dañ ciy boole sax ku tooñ ñu dem lijjanti ni ko bàyyil tooñ ku tooñ man tooñu kenn waaye nag kuñ tooñi sama yoon nekku ci wóorul di ndaxte lu tax wóorul mooy kenn tudd ci ni yàlla dana la tegal sa tànk bis bu tànk yi tarxiis kim ne dana ko tegal tànkam bis bu tànk yi lay tarxiis mooy ki nga xam ne daal dégg ni diw tooñ nañ ko mu jógal ko bii bi yar nag ak yi teggin sufiyanke yoo ko fi dese di ko def ci lu ñëpp gis kon nag ñu leen góor góorgóorlu ci ñoom seeni yital ñoom sufiyanke yi képp koo xamante ni bii da nga ni woon su ma fekk woon Seydina Cheikh Omar Fouti muy dem ca guerre ba du ma fi bàyyi képp koo xam da nga ni woon bu ma gisante woon ak alxaaj Malick si damay topp si gannaawam lu lu mu nekk ma nekk képp koo fi xamante ni bi da nga ni woon ma gisante woon ak eh, maam Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu këram laay yee dafa laay fanaan du ma dem fenn di ko déglu lu mu ma nekk ci képp koo xamante ni bi da naan bu ma gisoon Cheikh Saadi bu noonu laay mel ñëwal ci bii ñewul ci li jëm ko def tay jóg leen ci défendre ñi nga xamni ni gisatoo Cheikh Omar al Alhaaj Malik gisatoo Serigne Touba gisatoo Cheikh Sadibou waye ndax bàyyi wuñ fi ay jeexital ndax bàyyi wuñ fi ñu leen fi togal di def lu melni lañ doon def ak di wax ndax ñooñu nekkuñu di leen jema a ak gaaral ak di leen tamaka ak tanchaka ak ak xanj ak def yëf jóg leen gaar ñu ñu taxaw leen ay nit a ngi xorom diine ji ci turu diine ji ba àtt na fekk koo xamante ni bii bu jëfandikoo lu ko diine may ñu ni est-ce que est-ce ñu ñu ñu ñu bëgg ñoo won lam def bëgg ñu ko won ci anamuk yàq ba egg ci ni war nañoo seet kii diineem est-ce que mi ngi fi walla déet daal di koy firee firi wi wu ñaaw te defe ni yaa ca nekk loolu yi mbokk jullit yi war nañ cee jóg bañ ko cee bàyyi war cee wax mbokk julli jullit yi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi yóbbante ci yéen ba tey ñuy war leen koo jotal ngeen war koo déglu nag ndaxte yóbbante àq la أبو الدرداء moo ñu nettali سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم يرد عن عرض اخيه الا كان حقا على الله ان يرد عنه نار جهنم يوم القيامه ثم تلا وكان حقا حقا علينا نصر المؤمنين وفي روايه من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه نار جهنم ثم تلا انا لننصر رسلنا بلا آية يجيخ انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد lu mu wax abul darda ab saxaabi la mu ni man maa dégg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ni amul benn waay boo xam ni jullit la kenn koo xam ni jullit nga ngay défendre sa deru mbokkum jullit muñ bëgg a gàkkal doo ko défendre mukk lu dul yàlla dana waral ci boppam dana warlu ni dana dox si digganteeg safara bu yomal qiyaamate képp ku taxaw ni damay tegal sama mbokkum jullit wax ju ñaaw ju ñu bëgg a gàkkale jaram wala diineem nga def ko te fekk li la tax a jóg yàlla kese la suñ borom subhanahu wa taala moo wax loo yonent bi mu wax ñu ni ku def loolu yàlla mooy taxaw sa digganteeg safara bu yomul xaamatee doo ca tàbbi te yàlla dafa ko wax ci alquran mu ni man war na ci sama kaw man yàlla te yàlla lu mu war lu def ko dimbali jullit ñi nga xam ni dañuy fegal seen mbokki jullit ay ñaawtiif moo tax léeg-léeg nit day defe ni day defe ni day defe ni dara la fekk dara waaye la muy bon bon bon ñun ña ngay jariñ ci moom ndaxte ak mbon képp la feese bëgg koo bëgg koo tas ci biir nit ñi tooke ju bon ñun ñu taxaw dox diggante tooke jooje ak jullit ñi te mu jar ko beneen riwaaya yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne ku fekk sa darub jullit sa darub mbokkum jullit ba kenn mënu koo gàkkal bu yowmal qiyaamate yow it doo dem safara mukk mu indiwaat inna la nansuru rusulana walladina amanu fi lxayaati dunia wa yawma yaqumul ashhad beneen xadis moom it moog bii benn lañ rek mooy maa min maa min muslimin yazubbu an irdi axiihi illa kaana xaqan ala allahi an yarudda anhu naara jahannama yowma alqiyamati amul benn jullit buy défendre deru moroom jullitam lu dul ni yàlla dana warlu bu yemal qiyaamate mooy dox si digganteeg safara lii mi ngi ci addurul mansuur fii taf fi tafsiri bil masuur benn téere tafsir boo xam ni jalaaluddin as-sayuti moo ko tafsir boo ci demee da nga fekk lii te nag ñi nga xamante ni bii dañoo daa seenu làmmiñ pour wax lu ñaaw ci kaw ay jullit ay jullit ay jaambur yu set wecc ay nit daa seenu làmmiñ pour taqal leen loolu yàgg naa am am ñu taxawe loolu rek nga xam làmmiñ di wax lu ñaaw ci nit ñi te jotewuñu ñoom dara yàgg naa am ay saay-saay taxawee ko woon waaye tamit ñu leen ko ñu am ñu ngi koy teg seenub der ñeneen di leen tontul looloo yàgg naa am yonentu baa ngi nii sallallahu alayhi wa sallam muccul ci ay nit ñu daasoon seen làmmiñ ba mu ñëw ñu koy teg ci kawam di ko wax lu ñaaw luñ mën ak luñ luñ du ma wax luñ mën ak luñ mënu sax waaye di ko jéem fu ñu toll di wax ci yonent bi lu ñaaw waaye nag am ay saxaaba yu tedd yu xam laxasaayu taxaw ci ci kanam Seydina Hassan ibnu yàgg naa défendre yonent bi ci làmmiñam wi de Kaab ibnu Malik Abdullah ibnu Rawax a ñu dut ñoom dañ daan défendre yonent bi saa yuñ ko waxee lu jaaduwul bu ko yéefar waxee ñu daal di jóg ñi fi wuutu yonent bi ci lu wér fi wuutu yéefar ya doon xas yonent bi ñi ngi xas ñooñe ba tey ji bi daan na wax nañ nañ nañ nañ këppal nañ këppal Xasaan ibnu Saabit gënn mu toog ci ñi nga xam ne dañ may wax lu ñaaw mu delloo leen ko ndaxte man buñ ma waxee lu ñaaw am na ñooñ buñ ko déggee dañ koy gëm te suñ ko gëmee yàqule te buñ ko dul weddi faaw ñooñu dañ koy dégg te bu ñu déggul weddi dañuy defen dëgg la ku ma xaju rek na Xasaan dem ca Seydina Aboubacar laaj ko mbokk gi nu mu demee ba mu delloo ko xajuwu gi te du laalaale ci samay mbokki jege ñaale kenn parce que boo bokkeeg nit tamit am na nu ñuy nu ñuy demee ba mujj ngeen dem ba foo xam di ngeen di séddali ko kenn ku ne jël wàllam fa mu jëlee wàllam nag fa la ñuy tàmbalee moom it delloo ko la ca nekk moo tax Seydina Hasan ibn Saabit yéen xam ngeen ni daan na daan na delloo wahaabi yu de dëggal maan wahaabi yu ni la rek daan na leen delloo ay wax yu ñaaw yuñ bëgg a wax yonent bi ba ba ca la demee àjjana rek ba ca la demee àjjana moom Xasaan ibnu Saabit ah Kaab ibnu Malik Kaab ibnu Malik moom nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen waxoon ni leen uhjumhum wala uhjuhum uhjuhum mooy lan mooy ŋàññi leen ci kàddu fa walladi nafsi bi yadihi lahuwa ashaddu alayhim min an nabli ŋàññal ma yéefar yi ci ay wax puisque te na la wóor ni ŋàññ yooyu moo gën a metti ci ñoom bali fett yuñ leen di tiire kon nag yéen ahlu tasawuf wahabi yu ni ne leen wóor ni ŋàññi leen moo gën a metti balu fett te balu fett moom kuñ ko tëgg moom dem teer rek buñ la tëggee lu ko gëna graw mom do muy tuul ron terre nga jëm xam nga daanu ci kaw terre metti na waya dug ron terre mom dug ci ron suuf ci tahta al ard kalima kalima rek moko ko moo ko yóbbu habi yu am na benn xadis yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam dani jahidul musrikiina ni ngeen jihad ak yefeuri باموالكم نلن جرال سيت علل وانفسكم جرال لين سين بكن والسنتكم تين بولتي اي لامين دي لين واخ اك نيوم لغي نك بوغن امول علل ولا ام يين كو مي امو نيو بوسيبيليتي مان كو جيمل سي جهاد جي جوخه بكن منوت لا تقريبا لامين مو من نا te lamiñ dañ koy firi mooy nan la ñuy xeexe ci lamiñ asmiuhum na ngeen leen dégtal ñoom yéefar yi maa yakrahuunahu lu leen dul neex wa yasuqu alayhim mu tàng ci seen kaw samaahu min hajwin moo xam ci hajwu la wa kalaamin galiizin moo moo xam nga wax leen lu lu nga way leen way wu ñaaw wala sax nga saaga leen saaga yéefar saaga ko wàññiwul dara laa yuxibu allahu aljahra bissuui min alqawli illa man zulim illa man zulim ma ngoog te nag yonent bi digée na àjjana nee na képp koo xamante ne bii fekk ngam naa féq mu fekk asgor su set wecc jullit mbëgg koo tilimal nga dox ci diggante ba ni ko li nga wax doo fi waxee du dëgg yow bu yomal xaamatee dem àjjana ba noppi leneen dafa am mooy dafa xaraam ci yow nga toog di seetaan naan diw de mi ngi xas diw waaye man sama yoon nekku ci daa xaraam munkar la man raa munkaran sama yoon nekku ci waru la da nga ko war dindi sa loxo boo ko mënul nga dindi ko sa làmmiñ boo ko mënul lu tuuti tuuti kon boog mu naqari la waaye bis boo demee ba dindi ko sa loxo dindi woo ko sa làmmiñ naqariwu la sa xol bu boobaa bokkatoo ci jullit ñi ndaxte adaaful iman mooy mooy mooy mooy lii waaye mënuma ci dara bis boo demee ba nag wàcc ba boobu te mooy naqariwu la bu ci jullit ñi yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee mami min nimri in amul ben kenn nit amul kenn ko xamni ne yaxzulu mra'an musliman dana setan ab julit fi mawdiin ci birab tuntahaku fihi hurmatuhu ñu fay xotti war mam wayuntaqasu fihi min irdihi ñu ndiko fa wañi diko fa mànkil mu man ca dara ba pare setan lolu du am mukk illa xadalahu allah fi mawtin yuhibbu fihi nusratahu lu dul ni yàlla dana ko seetaan moom moom mi doon seetaan ñuy ŋàññi moroomam mu noppi ca yàlla dana ko seetaan ci béréb boo xam ne dana woon bëgg yàlla dimbali ko ci wa ma min imri in muslimin yansuru musliman fi mawdicin yuntaqasu fihi min irdihi wa yuntahaku fihi min xurmatihi illa nasarahu llahu fi mawtinin yuhibu fihi nusratahu amul benn jullit boo xam ne ma ngay dimbali mbokkum jullitam mu naroon a ŋàññi nar ko tuutal nar a xotti maam mu taxaw ca ba défendre ko lu dul ni moom it yàlla dana ko faye bis dana ñëw mu soxla woon lool ku ko xettali yàlla dikk ni ko faaw ma xettali la ndax yaa xettali woon diw ci àdduna bañ bëggee tilimal ab daram bañ bëggee wax nañ seetaan diineem ndax lan dafa joxe ra'yoom راي بو خا دافا تيغو سي كاو راي يو خا من دافا دافا جوكلو با ييغ سي تابعون يا با ييغ صاح تي صحابه يا با ييغ صاح بايكو تي حديث يونت بي صلى الله عليه وسلم مو وقت او غيسين و خا من فوفا لاي ديلو ام مونكو جوك وونول كوك نان نانيو كوكو دانيو ورا سيتات ديني bari waana ci ñoo xam dañuy mbubboo am njàng te dara ndaxte lay tek tekki ne xamuñu dara mooy jànguñu ahadisu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam maa buñ ko jàngee jàngub iblis lañ ko jàng lan mooy njàngum iblis mooy xam ko ba xam la ba man koo mooy wala muy tere mu lànk ko def am na koo xam ni day jàng njàngum iblis mooy lan iblis lu muy jàng mooy damay day jàng bu baax pour xam lan la yàlla digle ba man koo mooy xam lan la yàlla bañ ba man caa sax nde moos bu dul woon loolu nit du teg bëtam ci hadith yu wér yi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man rama musliman bi shay'in yuridu bihi shaynahu habasahu allah azza wa jalla ala jisri jahannama hatta yakhruj mimma qala amul ken ku jël ay ay jëf yu ñaaw di ko taqal mbokkum julitam bëgg ko ca ñaawale lu dul ni ba yowmal qiyamatee ca kaw ca kaw seraat la ko yàlla di téye ñu ko doo poussé lu dul nga wax la nga waxoon ci àdduna lu tax nga wax ko loolu moos ku ko jàngoon gis ko te gëm ko da nga ne ah man wax dëgg du ma dugg ci loolu ab addis a ngi nii te ahadis may wax yëpp yu wér la dama dama tàmm jële ci ahadis yu wér ba du ma fa nekk naan fii wala faa ab addis a ngi nii يونس يالله محمد صلى الله عليه وسلم مني من أعان ظالما بباطل ليدحض به حقا فقد برئ من ذمة الله ورسوله كفك بتونك غديك ديمولي تي ديكو ديمولي اي تياخان تي تياخان يوي لين تجوبل موي فك اك دغ كو تاخو غبو كو دانيل يو يالله يا غيني سا بوب تي يالله غيني سا بوب تي تي يونت بي تشام يالله تشام يالله يا تي غيني سا بوب اك تشام يونت بي man aana ku dimbali zaliman tooñkat loo ko dimbalee bi baatilin ak neen ay caaxaan loo ci jublu li yudxida bihi xaqan pour nga daaneele ci ak dëgg faqad baria min dimmatillahi wa rasulihi seetlu leen waa joo xam ne day ñëw fekk jullit bu am ahaliyatu def ittihaad ci diine ji am jumtukaay yi war a ittihaad yépp def ittihaad boo xamante ni bii daf ko nito ci ron nususu sharia te nusuus man nga ni bokku na ca idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu fa aftiru fa in ghumma alaykum faqdiru lahu mu jël fa batu faqdiru lahu jëfandikoo ko comme nako ko taabiun yi jëfandikoo comme nako ñen nak ci aimatul madahibil arbaa jëfandikoo comme ni ko nat ci ulamaul madahibil arbaa jëfandikoo comme ni ko nat ci al ulamaul mu'asirun ci jamono ji ñu toll nga xamanteni bi budé ci al miladi ñi ngi ci al qarn al wahid wal 20 budé ci al hijri ñi ngi ci al qarnul xaamis achar am ñuko ci jëfandikoo mu def même jëfandiku bi defé ko ci birum rewam nga attana garal ba egg ci ni ku def lolu war nañu sétat sa sa diiné ci ko xamanteni bi yow buñ sétone lu tol ne li nga génnee ci diiné ji def leen ay yéfer mom lu ko multiplier fouf mom mo leen duggal ci diiné ji def leen ay julit fu alquran yëngoo ci sénégal yëngu bu rafet buñ toppee lawtan nga dana téré ci kërëm fuñ jëfëndiko jëfandikoo sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bu tegu ci kaw xam-xam buñ toppee mbir ma dana téré ji ci kërëm nga fas yéene loolu lépp nga mabbu ko ci kanamu sénégalais yi yu mag yeeg yu ndaw yi ba pare nak yaakaar ni yowal qiyamati sey mbir dana ni ci mat sëkk loolu ku wax dëgg yàlla ci lek cànkute mën a yem man aana ala xusumatin bi gayri كان في سخط الله حتى ينزعه ku dem ci xuloo jàppale ci aji xuloo te tegoo ko ci dëgg ba ba nga koy bàyyi yàlla da lay mere da bàyyi rek yàlla man laa baal waaye bu dul loolu yàlla da lay mere ko defee mbokk jullit yi nañ leen nañ leen leen moytandiku nañ leen nañ leen xam ne di diine duñ ko fowe diine du lu ñuy jaay ku ci lekk alali jàmbur ci ci ci mbiri diine dellool alal ja te tuub bu fekke sank nga alal ji mënatoo ko delo demal wax ak ñila ko joxoon waye jël alal alali jaambur lek ko pour yàq ko diini julli ñi lolu du yoon bon jaatul fi mi tëje nak moy hadithu rasulillah sallallahu alayhi wasallam bi mu wax muni man masha مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام ku dox ànd na ko tooñkat pour dimbali ko te xam nga ni moom daa tooñ yow moom dootoo jullit génn nga ci lislaam di dox fekk tooñkat nga ni damay dem dimbali ko ci tooñam ngee mu nekk te xam nga ni moom moo tooñ wax dëgg yàlla yonent bi nee na ci lislaam mam macha ku dox walla mu wax wala mu jëf maa zalimin ànd akub tooñkat te la ko tax a jëf wala mu wax wala mu dox daf koy def li yuinahu pour dimbali tooñkat boobu ba tooñam goog yi gën a dëgër gën a sax wa huwa yaalamu te moom lii muy def di jàppale tooñkat bi leer na ko ni moom kii ci tooñ la nekk faqad xaraja wa huwa yaalamu annahu zalim faqad xaraja min al islam mbokki jullit yi mbokki jullit yi ñongi yamale waxtaan wi fofu ah di ñaan yàlla yalla ñu yàlla sutural te musul ñu ndax te ay wi reyna na wi metti na jaaxle gi dat na ñëpp a jaaxle fi nekk ndax te kat li ñu jaaxal ak ay nit ñu taxaw tem tem tem ci ni dinañ jël dinañ jël diine l'islam ci biir Sénégal luñ ko mënti raa Euh, luñ ko ko mën luñ ko mën di remplacer moom nañ ko remplacer waaye na fi lislaam jóge ñëpp nañ leen def ay yéefar même ñun ñi ñi leen koy def sax ñi ñi bëgg a def ñooñu yéefar sax ñoom jaral na leen ñoom seen bopp ñu nekk yéefar ànd kook ñoom bu teyee ñu toral yàlla wax lu yàlla waxut bu ëllëg yi ñu indi xadis bu yàlla bu yonent yàlla Muhammad yëgut bu gannaaw yi ñu indi at tey fiq yoo xamante ni bii ñoo ko njëkk a wax ci kaw suuf ci réew mu mel ne senegaal ci kaw yàgg ci lislaam nga xam ne ba lislaam amee rek la ak ci réew mi ba tey jii ñu xëy xëy rek nan ñoo man waaru naa bala may tëj sax ngeen baal ma dafa am ay baat yi alquran yu nekk ci biir suñ làkk wolof bii muy tegtale yàgg gu gu gu gu gu lislaam yàgg jaxasoog niti Sénégal am na ci nettalikat ñi ñoñ nee nañ l'islam bi muy dugg senegal booba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaayagul bàyyi ko Màkka dem Madina am na ñu wax loolu yi ma bëgg leen a indil ay nangami baat ngeen déglu ko ma wax ko ni ñu koy waxee ci arab rek bàyyi amu ci bu may wax lu dul da xam ni noona la ko wolof di wax ad dunya al axiratu al jinnu al jaww allahu الخليفة الملائكة العرش الجنة الستر الزكاة الكأس الصبح الفجر الشيطان سكرات الموت التأخير الإمام الميراث الف... ال... ال... الجهاد الحلال الحرام الصحابة الشغل القبلة القلم مواقع آه اللوح الهلاك الوفاة الذكر القرآن أي بحث جنون يباري دموكي التهجي دينغمام السماء السنة البهيمة الصراط الفاتحة الإقامة تكبير تسبيح تسليم الركوع السجود النافلة البراق الحج العمرة الآية الحساب الساعة يوم القيامة حور العين الكرسي البركة الفتنة الخميس الجمعة الاثنين الثلاثاء الأربعاء الثمن الربع الحرمة المصيبة الفريضة الكعبة الكوثر البدعة العيب القبة البرزخ الخطبة القنوت جرم نافك بعد baat ak ñeent بني xam ne danga xam ne lii mi ngi ci biir alquran lu dul baat yu néew moo ci amoon ci biir alquran lu deme ni ki xunnuut waaye am na ci sunna soo ko soo ko lu demee ni ki baatu ak sitru bu amul ci alquran am na ci sunna yu néew a néew soo ci soo demee rek da nga daal di gis ne na ko nañ koy waxee ci biir alquran noonu lañ koy waxee ci biir làkk wolof mu muy tegtale ak yàgg jaxasoo ñu toog ba mu yàgg rek benn waaye daal dikk kenn xamul fu mu bawoo bëgg ñoo soppi yéefar bëgg a laal laalaake ndax dañ ko ci bàyyi ah gay mool de du ko ci ba man du ma ko ci ba de danaa ci dem ba ba jeex ba lépp leer incha allahu taala assalaamu aleykum wa rahmatullahi